on va parler de l'insécurité euh, donc euh, ci ci ci réew bi je pense que les échos, euh, donc euh, def na si wala source A je pense voilà Vox Pop Vox Pop Ah, euh, voilà Vox Pop voilà Vox Pop voilà donc trois autres Barthélemy Mois et la peur juste pour vous dire que ne que euh, donc insécurité bi commencé na euh, kon lëmbee li nga xamante ni moom mooy donc réew mi donc ñu taxaw ci seetlu bu baax a baax Malick Thiandoum alors gis nga tey journaux yi wax nañ ci sànq yaa ngi ko doon wax jëmee ko nag ci li nga xamante ni moom mooy tiit bi nga xamante ni ñu ngi koy tiit mu mel ni li nga doon wax journaux yi dëggal nañ ko waaw xam nga jamono ji dañuy wax lan moo xew ci réew mi ndax la nga xam ne moom la Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ci almaxtum yàlla yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem doon wax dafa mel ni yegg si nañ ci mu ne nañu sang réew mi balaa muy sangoo deretam euh, bu ñu xaymaa rek ci diggante lu toll ci ñaari weer am nañu au moins une vingt vingt sept wala trente meurtres yu nga xamante ne nii am na ci biir réew mi. Euh, muy nekk lu doy ndax bu ñu xoolee pratiquement en janvier fële ca Joal am na ñaari xale yu nga xam ni kenn ki deux ans la am ñu tëj leen ci benn oto ba kenn ka euh, ba ñoom ñëpp ñu mujj faatu bu ñu demee bu Bukot am na benn tubaab bu nga xam ne charpentier ba moom moo ko ren di rey ko rey bu ñaaw muy Jean-Luc nga ñëw euh, également Sokas li fi xewoon Abdou jaw bi nga xam dañ ko tër rendi ko comme ni ñuy rendee xar Thiaroye-sur-Mer Cheikh Diop euh, euh, Baye Cheikh Diop di pêcheur moom tamit ñu rendi ko nga dem cees la fa xewoon barki démb muy asa euh, ki nga xam ne dafa agressé jam nit rey ko mais ñu rey ko moom it reyin bu ñaaw a ñaaw dóor ko ba mu toll ci diggante dund ak dee ñu teg ko pën taal ko mu tàkk li xew fii nga xam ne tey moom mooy ci technopole bi ñëw encore gën a yokkaat yëf yi muy double meurtre bu nga xam ne façon bi ñuy raye nit ñi moom moo ñaaw mhm. ndax jamate ki nga xam ne euh, mooy waali quarante et un jam nañ ko ko mhm. xanaa balaa balaa mu yegg quarante sax ñàkk na bakkanam mais dafa mel ni assassin bi dafa continuer di di di di ko di ko jamat jamatee mhm. nga gis li xew Grand Yoff Chérif joxe information bi démb ñu gëstu ko Diallo ñu rey ko ak balu fital bu nga xam ne dañuy wax ni balle perdue la donc mën nañ ci lim pratiquement trente meurtres yu nga xam ni ci diggante lu mat ñaari weer ràññee nañu ko euh, ci biir ci biir réew mi alors loolu dafay poser d'abord problème mu euh, ñun léegi ban façon nit lañu ñun sénégalais yi. ndax dafa mel ni que li ñuy tuddee haine barbarie coxor gu nga xam ni foo ko natt weesu na ko moom moo commencé di germer ci biir société bu mu mel ni on a une société pratiquement en faillite da ngay dem ba yaakaar ni sax yow boo gestoo gis nit sa gannaaw sa sa xel dootul dal nit ñi dafa am benn psychose bu nga xam ni jamono ji moom moo installé wu ci réew mi te loolu bu ñu demee ba egg ci dafay jur li ju tuddee paranoïa mooy lu lu mm-hmm. yëngu nga foog ni ci yow la jëm mm-hmm. euh, loolu nag je pense que war nañ ci def taxaw seetlu kenn ku nekk xool lan moo ci sa par de responsabilité ñu gën également di waxtaane euh, lu jëm ci comportement doomu aadama tey je pense ay ndaje yu mel ni euh, euh, màggal gi ñu jóge ndaje yu mel ni gàmm gi nga xam ni ci la ñu jëm ak ajjuma yi nga xam ni imam yi dañuy def ay sermon dimanche yi nga xam ni église yi dinañ fa amal ay ay ay ay ay ay ay prières yooyu yëpp war nañ ci mun a taxaw di gën a waxtaan ak askan bi delloo leen ci yàlla d'abord parce que nit bu fekkee ni sa ngëm dafa des sa imaan dafa des def lu bon daf lay yomb mais aussi ñun ñi nga xam ne ñun ñooy parents yi la part qui nous incombe mooy ci wàllu éducation sa doom war nga ko yar-yar bu nga xam ne li ma doon wax démb dina am lu mu ragal dina am lu mu rus dina am lu mu jomb mais loolu yëpp nag bu dajee dafa am lu nga xam ne aussi moom foofu laay jeexale dafay commencer poser wu mooy la peur s'installe et la peur doit changer de camp mm. maanaam tey askan bi ñoom ñoo tiit ñoom ñoo ragal donc tey li nga xam ne mooy kaaraange war nañu ko gën a ñoŋal gën koy yokk mm. kaaraange ci biir réew mi mooy éclairage bu doy mooy ay caméra de surveillance yu doy mooy force de défence et de sécurité yu doy mënuñu chaque sénégalais ñu jël benn gendarme wala benn policier teg ko ci sawet mais la présence dissuasive des force de l'ordre di sillonner dëkk bi ak ci koñ yeeg yenn Euh, quartiers yi nga xam ne c'est des quartiers à haut risque parce qu'il y a des zones criminogènes buñ ko identifier je pense am na lu nga xamante ni buñ ko defee mën na wàññi li xew mais daal li gën a am solo mooy travail de sensibilisation de conscientisation et de et et de et d'élucidation des masses et loolu ñun ñëpp la incombé en tout cas li xew ci réew mi doy na waar te tiital na ku nekk. Mhm, Euh, Malick wax na lu am solo muy ci travail bi nga xamante ni en ah, na ma war nañ ko def te boo buñ ko waxee nag mbiram éducation bokk na ci ngir yar gone yi ci lu bari surtout que dañoo nekk ci jamono joo xamante ni am ay phénomènes yu bees ndax li ni seetaan ci internet bi dem ba di ko jëfee moom moo tax sax ñu naan bu fekkante ni mooy réseaux sociaux yi xool naka lañ def ba mën a am éducation même. ci nouveau média yooyu su ko defee kon ñu mën a aar gone maintenant est-ce que lii mënoon koo jàngat sous l'angle de l'insécurité parce que en tout cas ay meurtre nga xamante ne am na fi fan yi mooy ñett yi bu ñu jëlee ñett yi à part bu grave bi nga xamante ni foofu dégg naa ay agresseur ñoo ñëw yor seen i bal moo ñu busi moom kooku moom mbiram insécurité la dafa mu amee aussi ku ne xam na ni muy Grand Yoff bokk na ci quartier yoo xamante saa antu nekk dañ koy tudd ci wàllu loolu moom jar na ñi nga xamante ñoom lañ dénk wàllu kaaraange gi ñu gën cee liggéey gisoon nañ ministre de l'intérieur Jean Baptiste Tine bi ñu koy falee demoon na ci commissariat bi nga xamante ni mooy bu Grand Yoff doon fa def ay visite yu ni mel loolu jàpp na sax gën a dooleel mooy su ko defee gang yi fa nekk ak ñi nga xamante ci mbiram ciné ba lañ ci yëngu yu ni mel ñu mën a aar askan wi parce que chef de quartier yi ñu ngi kiy def lu am solo mais yeneen yi ñi ko def ñoom ñi ñin faat daanaka ñoo dëkkandoo wala xamante ne loolu moom ab alkaati mënu ci dara te kon mënuñoo jàpp ni mbiram insécurité la parce que bu nga xam ne bàñ ñi la xale ba mu dëkkoon kàcce ba kante moo faat jarbaatam ca ah. ah. moom loo xamante kon beneen cas bu mën a jur maintenant de manière nag ci li nga xamante moom mooy xeetu meurtre yi bu amee jàngat li bëri na comme ni ko criminologue bi doon waxee démb fii ci Sénégal su ko defee voilà ñu xool fii ci Sénégal naka lan ma def ak approche boo xamante ni déjà de manière ni nit ñi dëkkoo wala yu mel nii bu amee parce que alkaati yi dañ ciy def liggéey bu am solo yi ñu hmm. parce que mbiram et la mais ñeneen ñi moom jamono ji ñi ngi ci loxool yoon ñu war leen di procureur donc muy wane liggéey bu am solo boo xamante force de défense xarañte wante aussi jumtukaay yi nga xamante ni koy commencé jëfandikoo parce que jamono moo commencé dox ci wàllu woowu boo xoolee am na agence bu ñuy wax agence sécurité de proximité mhm. bi ñu fi créé en fii ci Sénégal mhm. lii moo ko taxoon jóg ñoom indi woon fi woon ASP yi ngir ñu dem di nekk ay secrétaire maanaam du fa leen fekk ci ay maire yi voilà ay maire yi et maanaam li nga boo gisee loo xam xamun ko wala nangam ñu mën a alerter mm-hmm. police wala gendarmerie ñu mën a liggéey loolu moo doxoon en réalité ñu ñu créé woon li nga xamante ni quand même moom moo taxoon a jóg boobu pense que kiin ko dégg nga xamante ni moom it ab gendarme la xam enquête muy capitaine Touré je pense que war nañoo delloowaat ASP yi ba nga xamante ne dugal leen ci quartier yi boole ci nag même les collectivités territoriales maire en tout cas dëkk yi nga xamante mooy dëkk bitim réew yi les maires là dañuy jouer sax rôle boo xamante ci wàllu prévention di jàppale force yi parce que ñoom ñoo xam ñëpp chef de délégué de quartier yi la même chose bu dee village yi nga jël leen ci su ko defee ñoom a jàppale di leen parce que ku bëgg akara da ngay ñemee kaani ko moom di de quartier yi ak les chefs de village war nañ leen a jox ay ndàmpaay yoo xamante ni ñoom ñu participer ci sensibilisation ba ku gis loo xamante ni kam dalul sa xel nga mën a woo wàllu alkaati voilà dem mm. comme ni ko professeur bi doon waxee mbiram boo déggee yuuxu tam foofu tamit Sénégal beneen problème la dañ faagaagal fii soit nit ñi dañuy jël téléphone di filmer au ñu woo alkaati wala ñu alerte ko wala ñu nekk li nga xamante seetaan la ba nga xamante ni musiba naarulaay da ciy doog da donc ay comportement la yu ñu war a changé xam ni kat jamono dafa tërët di changé na parce que fi ñu toll nii urbanisation bi nit ñi comme dañuy mbooloo mi dañuy gën a gën ci benn benn espace boo xamante espace bu réduit Ndakaaru comme bu naan la 3 pour cent déjà population Sénégal bi ñoo nekk ci euh, territoire boobu xat na comme ñi ngi buuxante nag ay jéyee yooyu moom mm-hmm. du fi ku ne mën nga fay jële aussi da ngay wax loola neex rek mais mën nañoo def ba nga xamante ni di ko ñu xool aussi naka lañ mën a gone yi ci wàllu jikko ak yu ni mm-hmm. ba nga xamante ni quand même on peut limiter les criminologue bi wax Cheikh. sànni si ñaari kàddu. Euh, je pense que euh, mm. bëri na ci loo xamante ni euh, dafa woon ci Sénégal daal di woon nekku la woon moom moo woon nekku Dieynaba Seydou Ba ndax liñ fiy gis lu bëri amaana tey ñi nga xam ne ñoom ñoo fi doon dund démb ak barki démb boo leen yowoon ne Sénégal tey fi la toll. Mm-hmm. ñu ne amaana déedéet. je pense que la responsabilité par exemple ñi nga xam ne ñoom ñoo di waajur yi également donc tey am solo foofu ndax. képp koo xamante ni yaa ngi jëf-jëf ju ni mel amaana ci màkkaan nga bàyyeekoo. Mm. donc euh, faaw waxtaan euh, layante biir également di am ci li nga xam ne ñoom ñoo di askan Sénégal bàjjenu gox yi gis nañu leen ñi nga xam ne ñoom ñoo di imaam yeeg ak chef de quartier yi ñoom itam am nañ ci pàcc bu am solo boo xamante nii war nañ ko ci euh, mën a jouer je pense que une sensibilisation bu am doole s'impose ci ci ci ci ci yu mel nii. Mm. bu ko defee ñu gën a conscientiser ñi nga xam ne ñoom ñoo di aska askan wu Sénégal ku nekk jàppee sa morom euh, ni sa bopp bu defee euh, jéey yu ni mel ñu mën ko wàññi bu baax a baax ci réew mi. on parle de conscientisation euh, Cheikh Tidiane Diaw yar bi yaakaar na aussi ki suñuy gone yi. donc quartier bi environnement bi c'est également important pour moytandiku mbir yu mel nii. Mm. ah ak désœuvrement bi parce que insécurité bi ñuy wax yem yemul sax ci rey bi parce que léegi da taxaw di wuyu téléphone sax ci mbedd mi ñu ñëw këf téléphone bi yóbbu ci. Euh, de deux roues ah c'est arrivé à un ah. de nos bërki démb rek <laughs> fii ci ci buntu télé bi ça veut foo mënti nekk tu tu sécurité. ak foo mënti nekk euh, xam nga ni ku ñëw këf sa téléphone yóbbu mënoon na def leneen. Euh, boole ci leneen nga ñàkk fa sa bakkan ci loo xamee ni. yow da nga doon dox sa soxla xalaatoo sax ni que fii lii mën na la fi dal jee jooju dal sa kaw mais sànq Malick mi ngi koy wax que euh, la peur doit changer de camp peur boobu nag pour mu changer de camp je pense foog ñu xool ci yenn réew yi nga xamee ni euh, dañoo confronté woon genre euh, phénomène yu mel nii naka la ñu ko régler mm. on a soulevé si euh, la question de la peine de mort est-ce que dañ ko war a appliquer ou pas c'est un débat mais moi je pense que c'est un débat aussi qui mérite d'être posé en parce que mënoo euh, ñëw parce que ça xeetu rey yi ñuy gis Sénégal jamono dafa ñaaw ay degré de ah. boo xam ne nii euh, sew sëmam mm. ba da ngay yéemu naan lii nan la ko nit mën a defee mais kooku soo demee ba juger ko ba jàpp ko Euh, ba mu leer ni moom moo def lii nga ñëw tëj ko vingt ans mu tëdd fa mu tëdd nga koy jox añ reer ndekki euh, nekk ci ololaam je je me dis que loolu aussi euh, y a y problème parce que am na ñoo xamee ni dañuy. non non non waaw mm. mais suñ ko abolir aussi pourquoi pas y a d'autres yoo xamee ni ñu ngi koy appliquer. Euh, États-Unis am na état yoo xam ne dañ ko doon def. Mm. du koy def te lu tax ñu koy def parce que peut-être que dañoo jànkonte woon nag problème yi nga xam ne ñun moom la ñu ci waaru ci na sax juge moom mooy kii lépp. Mm-hmm. est-ce que wàññi na ah, bi. non non non juge moom mooy mais aussi mais mais foog mu am aussi luy dissuader. foog foog mu am luy dissuader. parce que koo xamee ni dafa li mu def li mu rey-rey bon yi nga jël ko ak koo xamee ni dafa doon jaay peut-être euh, ay cornetu yàmba nga tëj leen ñu bokk même condition yi ñuy dund ah, je me dis que y a problème fa yàlla foog mu am ay mesures mm. dissuasives yoo xamee ni la peur va changer de camp mm. euh, ñi la tamit xam ni am na yenn yoo xam ne soo ko defee am na loo ci mën a fekk loo xamee ni jaru ko même su ko jeexalul peut-être que mën na wàññi dara ci euh, mbir mi parce que fi ñu jëm nii euh, dañu mel léegi Afrique du Sud nga xamee ni dëkk ku nekk day tëju ci këram ak ay arm mhm. commencé def ay électricité ci seen buntu kër yi ay fuite bal bëre yoo xam ne yëpp dañ ciy def courant parce que fa fa lañ jëm. à mhm. ce rythme. na ba je pense que faw ñu xoolaat mbir mi parce que ñu wax ko ñu ñax ko wax euh, y a énormément d'insécurité euh, dans ce pays dans la capitale euh, te loolu faw ñu lijjanti ko. en tout cas dooy na waar comme on dit généralement nga jël sa njaboot gi sew gi sax di ko tëj ci wiir kër gi ñu naan la da ngay tëj sa njaboot gi di tëj sa njaboot gi doo bàyyi xale yi génn mais ragal bi ngay ragal moo tax sa doom bu génnee sax bu defee 30 minutes ci mbedd bi il dem <laughs> parce que voilà gune gune gune gi gi ñu bi ñu gis démb papa ji la wax boutique la dem boutique voilà moo tax euh, comme comme on dit rek euh, on a peur hein, de de partout mais il ne faut pas qu'on laisse la peur nous gagner euh,